affaire bi li Ousmane wax léegi ah nekkatul wallu wala yeewu parce que bu xoolan ne Assane mi ngi wallu Sénégal du ma jox conseil mais moom dafa jël Sénégal daf ko bañ ba bi ñu nekkee prison su ma di wax ak moom ci waxu politique daf may wax ne Assane man yoruma parti politique yoruma leen man militant bu Sénégal la ci moom laa ko jëlee militant bu Sénégal la moo par force lay jël parole Excellent. parce que coalition dafa am ñu yi dooree léegi conférence des leaders Déthié Fall suñu fu ñu dem Déthié Fall gis ngeen ne suñu ma donc ma ne ñu ngi nuyu ñëpp ñu ngi sant ñëpp Déthié ak Ousmane wax nañ suñu tur gis nga xeexu tukki bi dem ba jeex na il faut ñu tëcc leen il faut que ñu gañe leen maximum